waaye yow ay gis naa la nag bi nga ñëwee ci kër gi ba tey kër gi man nii la def. maa bëri doole maa bëri doole bëri doole. waaye est-ce que yow da nga mool. yow kay booy macha allah man su ma la gisee xoolal sama karaw yare yi nga naan taxaw. lan ñëw bi mais yow la bi nday yow nga bëgg la defal bagage yow ñëwal xaw da ngay foraatu xaw ma da lekkantu yooyu yow xiifa goo de yow xiifa rek dama lay jaay bientôt soo xamoon li ma lay waajal soo xamoon li ma lay waajal <laughs> yow xam nga ni ni ndakaaru dafa dafa metti ndakaaru mettiwaay bi tax na ba ma ma bëgg a jaay kii borom kër gi chaque jour daf may taxaw léegi nag mënatuma lool te xam nga ni dëkk ba buñ fa tëbaskee day gën a neex yàpp ya day jàllaa ñoo ah, soo si di dàqe koo gëjoon a gis da nga koy gis. <laughs> sa waa ji efficace na de sa waa ji démb la mu indil ñaari xar. Ah. waaw waaw. ana ana ana ana xare. bu góor baa ngi nii eh. waaye beneen bi nag jigéen la. ma xam ni tabaski ay xar yu jigéen yooyu noonu jekku ci. xar bee eh Idrissa yow laa xar bay sànq dafa tilim balaa client di dugg fii di ko gis du ko jënd. nijaay ku la dul tooñ nga bul nga bul ko tooñ amul ay sang xar amul lii. nijaay aduna ay laaj yenn saa yi nga dund tuuti bonheur tuuti ay booy bi laay waxal. Eh, eh li ma lay wax ci kanamu booy bi laa la koy waxee. <laughs> nga dindee di gën a ndax. ci yow yi naan. soof wala dafa soof. Hmm. dafa soof. salaamaaleykum. ah doom ndey. borom borom baat wurus baa ngi nii. mais booy mais booy namu naa la. ah kii papa ma maa la waaw mais ci loo nekk naka temps bi. maa ngi nii. yaa ngi am jàmm. cool. mais xale bi nga toog si biir semaine kii sa lan la. bii mën naa ci quatre-vingt-dix. waaw bee mën naa ci cent garaaw. ci cent bu ma fekkee makaan lu leer laa la tegal. Ah. mbote cent mille la. kuy cent mille la amul wàññi. Oh. bàyyil fenn. daa xam ne da nga sa waay loolu aayul. boo ma gisee ni may daase nga xam ne sama xol bi jeex na ci yow yow mënoo bàyyi kuy ñëw di ñaan si xar nga ko ak bàyyi bàyyi bàyyi ku ñëw di ñaan sa xar nga dugg si sa làmmiñ bi Idrissa man aw ma xar bu may may. ah waa kay xar bi dee ko toppatoo waaw moom moo fi des dee ko jox ripaas boobu ma la doon wax ak ngooñ ba te eh, bii foto ko sax foto ko. Hmm. foto ko nga publier ko. doon ko ma def. loolu. waaw nee na. ça va je bi vendeur de mouton. saareen bi de mi ngi nii. daal vendeur de mouton moom xaw ma ko bi daal mi ngi nii toog. Eh, na hmm. ay nasaraan la lay ah, ay nasaraan la ah ma traduit. <laughs> bonjour. bonjour ça va. <laughs> j'ai besoin quatre moutons. ah nijaay. nee na bëgg quatre quatre xar. ba bàyyi fooj bi bàyyi waa bii dafa amoon damm damm. nga xam ne man li may dama ko mën. waaw ah. léegi dama bëggoon mbee. utal ma numéro téléphone am. waaw wala numéro whatsapp am. même boo xamul fu mu dëkk sax man naa am numéro bi rek man loolu wariwul. Ah, ah, ah. xar bi xar bi weñ. ah wuy ma ma xar bee mënuma ci loolu mënuma ci sans loolu mënuma ko ci xar bii daal pour ñi bañ a werante daal ndax xar bi bëri na wax gis na léegi mën nañ kaa def euh, juróomi junni baax na c'est tout. père juróomi junni yow temps da nga commencé jékku rek commencé du feew xam nga du ma def loolu. xari mbote 100000 la kuy 100000 la bul dof dof lo jamay deg ci man ma la gëna yegg ma la gëna bak perek boy ñëwé dama wax sa wax yoy no man fa dama stop la ah, eh li mom ban ngoñ la ngoñ ngoñ ngoñ ñebe ngoñ ñebe bi rek legi nak dama bëgg xaru ama seen bi nga koy xonté ripass bobu ma waxon xam xam nako xam nga ripass <laughs> dee ko xonteeri pass boobu ak ngooñu ñebe bi. waaw waaw. muy gën a duuf rek. muy gën a duuf kay ama seen xam naa bu ci jotee. xar bee moom xaru abaa bi léegi gis nga ko. daa daa daa dër. dafa dër kay. Ah, daa dër xaru bi dafa nuru abaa nuru abaa ba Oh, la ko dara. Oh, oh, xoolal ndel bi yow xoolal ndel ba ah, dër ba yàq. te nag buy mbee mbee bi day yéex day tere ne rek. da ngaa dof. yow xam nga yow. boo ma jàppee foofu rek. danga may am. yow da ngaa xam li may gaañ. ak li may daaneel di ma ko def. mbooy bàyyi yi may def affaire traite. ndax nag képp kuy def lu baax. ndeysaan li yaay doomi géej jawaar. yoole bandi jaru laa